si doon wax la ca mat loolu mooy insaanul bi la ca manqué mooy mu la ñuy wax majjunoon moom ab wala ab dof moom nag si ñam sa moo tax mu mat loolu la wax moo nee na bu matee bañ ñu gis bañ ko gis du ko naw mbaa ñu koy nëw ci ay jukko mbaa ñooy xamee ma jaxasoo ak moom lépp si ñam sutu la ndax si am sutu moo xel li abira bi na ci moom mu sotti ko ci si ñam saa ko yar moo ko moo ko xamal adduna moo ko defal luy tax mu mën a jaxasoog nit ñi waaye gi gi loola da caa jiital sant ay waajuram yi nga xam ne ñoo ko joxoon si am sa ba mu def ci moom ñu def moom kon moom nee na amul lenn lu mën a fayee sëriñ am satu loolu di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tawéer àggale liggéey suñ tubaab bi tañ ànd koog moom boo xamee ne nag mi ngi fas yéene topp ci ginnaawam lépp lu mu joxoñ mu ànd moom lépp loo xam ne mbiram jëmu ci mu woon ko ginnaaw loolu la mu waxoon ne dinaa leen ko wax ngeen seeral ko mi ngi sàkku ci mboolam mbooloom tam ku fi nekk ñaan am no solo lol ginaaw boko le ñaanalee ay wajuram ñu yag fi bu lol momitam mu am njariñul nyul mana taxaw ay wajuram ba nopi mi ngi sakku di yelwaan ñepp ñaanal ko serigne am satu momi mu yag fi tawee lol na mako xol neena am sa ci aduna mom ñor na lol ndax da am lu mu ci gis motax waaw yàggug am ci aduna neena na ñor nako lol bëgg na ñepp ñaanal ko serigne am satu yàgg fi lol lol lol lol serigne am satu it ku mata ku neexa ñaanal mu yag fi ndax moom li ma xam ci moom bu dul woon ak caméra yi ma wax leen ko waaye du ma ko wax bu dul woon ak yii ñu ma dëpp moom naa leen wax li ma xam ci moom waaw li ma xam ci moom bari na lool waaw fay waaye nag euh, naa leen xamal tuuti ci lii ñu fi doon def ak li sëñ bii def ndax keroog bi mu tegee tànkam fii nañ ko fàttaliku bu baax ndax xeeti bi xeeti yi baax na lool waaye di ko defee ci barab yi baax na ndax daa am jeexit muy dëkk bi ñu nekk ku ne xam na la fa sëñ bi daj ak fi mu fi jaar ak lam fi def ca lañ ca xamut bari lool te gën a metti liñ ci xam ndax kuñ tëj tim néeg ngay fàtt nga dem ba génn néeg ba ba tukki fa nga doon tukki ba dikkaat di fàttaliku néeg ba nga duggoon ci ko ci jàmbaar ju tal ne Sëñ Tuubaa muñkat bu tal ne moom kon am na lu nekkoon ci dee ba isaa sakartu saalikal mabita wa ma wa saalikal amina wa saalikal amina su ma fàttali ko fanaan ma ak ka digle woon fanaan ma taarat ilal jihaadi waaye yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mooy téye sama mbagg ne dalal te teey léeg ci sa borom fàggul mu ëpp lii nga ciy wax sëñ am sut la woo ne ko néeg boobee bañ ma ciy dugal daf ko njëkk a wax ne ko war ngeen a góorgóorlu bu baax ndax keroog bi may jaayante sama liggéey bi ci Daaru Xudus gii de boo fekkee ne lu ma war a am am naa ko waaye su ma su may génnee rek yéen a tax su ma génnee rek yéen a tax ndax sëriñ bi mom fim mu rawee ñooñu mooy bët ba moo kon ñun ñi ay bi suñu bët dafa wara a ndax mom keroog ba ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom di feeñu ci da ca ca euh, fofu juma ji nek ak bëb bu fa nekkon bam ko fa feeñu ko sa dana la seet si lu mu ko wax da ko ne lu mu fi lu mu wut ak lu mu may doy ma kay du ngi bind lu mu fiy wut ak lu mu may doy suñu borom wax ko ne ko fa sa borom daan ag ñu di leen takal ay médaille da fa aksi mu di la ko takkal si sëriñ Tuubaa bu rëbee da ko ne Miraay mii may takkal si nu mel mu wax ko mu ne ko ndax mooy mam yor loolu mooy bët bu rëy lan ndax mooy mam yor mu ne ko déedéet bokkut ak mam mu ne ko man nag mu dul mam yor soxlawuma ko su fekkee am na ko yoon woo xam ne ku fa jaar jot ca nañ ma ko wax su ma ko sañee su fekkee am na jëf joo xam ne ku ko jëf jot ca nañ ma ko wax mu ne ko loolu sa diggante moom la kon Serigne Touba àgg na ci boromam yoon mu njëkk te jaarul ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waye suñ borom moko ne ko fi nga jaar baxna waye li nga bëgg li la koy mooy mooy imaamu rusli waxaril bariyati mu ne ko ana fu yonente bi nek kon moy dal la ne allahu ala muhammad yalla ma tektal fa ma fa yonente bi nek sallallahu alaihi wasallam ma fekk ko fa dal la ne allahu ala muhammad yom na de waye waxaat ni muhammad ni sama di mo jafe si yam sut dafa wax ne dal la ne allahu ala muhammad daru qudus la waye waxaat ni muhammad ni sama di ginnaaw bu mu jige ci geejgi gi la waxaat ni muhammad li sëmbadi nag mooy conséquence ndax da ko ne lolu sa ak mom la lolu ngay sàkku soo demee ba mu jox la ci ndigal bu la bu boobaa mën nga ko def yonent sa sallallahu alayhi wasallam jox Sëriñ Tuubaa daru euh, rendez-vous Daaru Xudoos maa ngaa këyit ba nga xam ne ci la bi bind ne gis gi ma gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaqasatan laa dama ko gént dama ko gis jël ren mu jox ma loxo booba la yonent bi di indi daay moomu di ko ko jox si dama bëgg a wax commentaire lii ñun li ñu sëñ bi defal conférence uma damay commentaire li ñu sëñ bi defal kër li sëñ Bass mi ñu doon wax bi mu ko waxee loolu de ko ne yonent bi salaam bi mu ñëw ahlu badar la àndal fekk ko Daaru Xudus Daaru Xudus googu yi fa la sëñ Tuubaa njëkk gisee yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ba mu ko gisee lam ko wax mooy dafa yonent bi daal daal di yëkkati midaay moomee daa koy yi sëñ bi bi mu ko ko wékkee mi ngi xam nga am midaay ku ñu ko wékki da ko war a yëkkati wan ko ñëpp ñu gis ko nga ciy feetu toujours bis bu set ay fani fan doog koo denc ko ci sëb dënn yóbbaale moom nag bi ko ko sëñ bi ko yéen sal salam wékkee médaille moomu dana ko wékkee teg ci suuf xeeb gum ko xeeb moo tax bët bu rëy bi laa la bëgg wax dana ko yëkkee teg ci suuf ne ko dama laa soxla woon yonent bi sam daal di bàyyi Ahmadu jàll mu ne ko danga maa jaaxal mu ne ko lu ma la jaaxalee Ahmadu mu ne ko xeemem tif bi ma am ci yow bëgg gi ma am ci yow yaakaar gi ma am ci yow sama xol bii di fóotu bis bu set ngir bëgg a barkeelu ci sa jëmm ji may xalaat jataay bi bis bu set basi ci jataay bi te mënuma laa laal te booba ñu ngi jàkkaarloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muñ na ko loolu de du dara dañoo soree rek mu ne ko misaal ma soriwaay bi mu ne ko soriwaay bi weesuwu li nga taxaw lu mu doon mu ne ko suuf mu ne ko suuf soosu bu ñu ko defoon ay peri kurus ba ci suuf si yëpp ci àdduna jeex tàkk benn per bañ a war morom ji des na ko tàll ba mu jeex tàkk te du tax fi nga fekk ma fi ma nekk sëñ bi ne ñokki jóg nag ne ko mën nag lu dul fakk la foofu yi nga nekk soxlawuma ko bokk ci mbooloo mii nga la wër laa bëgg bi ma ko ne dana mbooloo moomee mu doon sàkku ca moom de mbooloo moomee mu doon sàkku ngir bëgg bokk ca mbooloo ma ko wër far na liggéey liggéey bañ boole kook mbooloo ma ñu wër ko far muy ahlu badar suñu xëy na mu ne ko mën ne lu dul fekk la foofu yi su ma ko sañee xam bu fekkee am na jëf joo xam ne wax ko na nam ko waxoon boromam sëñ yonte bi daa daa muñ ne ko ahmadu loolu jàpp naa ne mustahil lay doon ci yow mooy loo xam ne lu jomb la ñu waxante te dañ te waxante mu ne ko sama ruug yi dala sàkkut ba xamulum attan mun li tax yéen soo sam ne ko lu jomm la mooy te ko ne nii nga ko bëgg ak ni nga ko yaakaar ak ni nga ko waxee woon noonu yi la ko say moroom bëggee woon waxee woon ko noonu waaye bañ leen ubbilee kiiraay li tax ñu fekk ma fii jëralu leen ko lii nga xeeb ba bo nga jël ko te dem na say moroom loolu mooy xutbul xaws yi xutbul rabbaani yi xutbu nangam yi rek mooy xutbu xutbu yooyu yi yooyu yi nga xam ne ku ko am yow danga koy manifesté woo ci marché yi di ko wane ngir ñu di ko gis looloo tax Serigne Touba ba mu ko jëlee moom dafa wax seen sut ne ko koo fi gis mu kaalaw lam yor ba kaalawoo ko ba ma ci jotee ci sama ndigg ko takk ne fa ma jëm àggaguma fa loolu yooyu loolu mooy xutbu xaw si yeeg xutbu rabaani yeeg xutbu samaan yi moom da koo laxasaayoo nee na doo koy doo koy yëg kon ca ci ñëkk muy dem ci géej gi lañ ko joxoon xutbu yooyu mu taxal rabasé ko ba mu nekk buum mu takk ko ci ndiggam moom noonu la def moom la def lañ may defal diglu bi rek mu muy addi ci ba mu defee loolu da ko ne am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne nii nga ko jaayante woon lañ ko jaayantee ba bët bi ñu leen wanee lii tax ñu fekk mu fii dañ ko fi bàyyi daan ko te lii day loo xam ne soo ko jaayantee suñ la ko tegee te attanoo ko deesu la ko tegati loolu la ko wax bukkut ak mbërum làmb moo xam ne dañ ko laan daan dimanche dimanche di del si mu woo ko ka daanoon wutaat doole ju ko ëpp ne indi ma daan ko bu buñ la xasee daan jeex ne ko am na ñoo xam nañ ko ba ci seen bëti woom mënuñu ko tek seen bop ñu tagal ko amna ñu ko yëkëti ba ci seen dënd mënuñu ko tek seen bop ñu tagal ko amna ñu ko jotax yalla ba tambalé dox mënuñoo dox ñu tagal mom fi mu ne ko tass yobbu lool moy la ko suñ Moussa ko doon wanal ko yam bañ yoon khutbu ya ak abdal kon yam nañ leen ko yenn woon nañ ko wa taatan nañ ko ñu fop ko mu ya ko fop ro gaay kon day melni ne yenn won nañ ko duñ ko attan mu ne sa yëpp nak bokku na ci li taxoon ma dem ci geej gi ginnaaw bu bu bu lii jàllee sama borom nee na nga kaay ma waxe la lu taxoon ma dem ci géej gi ak lu ma fa taxoon a dem sëñ Amsatu jël këyit di bind mu ne ko ñetti sabab la waaye ñaari yi ngeen xam wala benn bi benn bi mooy lii ñuy wax naan sababu xay ba tey ana la ana la aral ana la mu a akoon saafara nangam nangam mooy ñun ràmm gum ñu ràmm loolu nee na ci la waaye sababu saahir bi mooy jàpp ko ko tubaab yi jàpp yóbbu daanaka am na ñaari sababu baatin ben bi moy dafa am agna ci sama borom fo xamne neena amna baat bo xamne ko bëgg wax waye firna ci mindef di gudé da ngay dem fu kenn nek mo waxé la da nak fa ma doon jullee ci géej ga ba ma jullee ba nopi la am ndaw lu jàpp ci sama nopp ne ma ahmadu ma wuy ko mu ne ma yaay khadimu rasul lolu moy lam wax ne xàlla ma ni rahmaanu fi safina bi annani khadimu sil madina lolu moko bind bi gi dess mu nako ana ginaaw ak noddu lu ngeen di wax mu ne ko ak nodde mbàkke bu daan danañ wax allahuma rabba hasi dawati tamma wa salaatil xayma ati sayidina muhammadin il fadilata wal wasila wa darajata rafiha wa bahsulahum al maqamal mahmud alisi wa hatta ba ca innaka laa toxul miaada sëñ bi daal di muuñ daan na ko sama sang ba day saa borom da koo diggoon ab maqaama waaye joxu ko ko ndax alisi wa hatta la wax mu woo saxaaba yi ne leen ginnaaw diggante noddu ak liqaam lu fu waaye ñaan ñu may ko ko ñaanal leen sama maqaama bi ñor na ma lool sama sang sama sama borom di mako jox señ bi tim ñëkk juk da tim si yim sutu daal fa baram bi takko ci bop si yim sutu bi na ci leen taxon ma dem ci sama sang bi jot ci maqaama boobu si yim sutu ñëkk juk taxaw won ko ginaaw señ bi dox ñet jéego wul ko fekk fu nekk fop fob tànkam fop loxam fob loxoom ko tegal ko ci bop bi nako am sutu karat bi ma tege ci sama dekk bi sama sama tang ci dekk bi ci la sama sang bi di jogo jot ci bobi. loolu mooy waxaada ni Mouhamadou li samadi waxaada ni Mouhamadou samadi ci misaal ngir gàttal li ko gën a gaawal mooy ci misaal bi ko yonent saa ba noppi suñu borom daa yëkkati cent milliards joxe yonent ko boole naa la ak Ahmadou wàccee fay ko yonent bi daal di ree ndax li ko tax a ree ak jaaxle mooy ña ko jiitu woon un million rek la ko daan jox te dawul jeex tey mu jox ko cent booba xaal boobu suñ borom mi sàkk sëñ tubaa xam na koy sëñ tubaa waaye am na lu mu bëgg a xamal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci sëñ tubaa muy def ba saa sëñ bi wàccee rek mu yëkkati junni jox ko suñ sëñ bi wàccee mu yëkkati junni jox ko ba cent milliards yi tàkk sëñ bi bàyyiwul muy bind kayit di ko jox naa ko maanaam ameel ay bon di ko indi di ko bind bind ba kayit di bari si moom nag ci misaal ngeen ngi dégg bi may waxee mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko yow kat dafa am ku ma boole woon ak yow jox ma ak payoor nga may liggéeyal ma ma ma di ko ma di la fay jox la ma joxoon jeex na te bàyyiwoo te ma amel naa la te ëmb lu ma la fay kaa ñu dem ca kama boole woon a yow mu fayal la loolu mooy waxaade nii wa mat na ma muhammadul muhammad li sama di bañ demee ba àgg suñ borom suñu yentu sa sa wax ko ne ko jàlla waxa sax yaa ma boole woon ak kii mu di ma liggéeyal ma koy fay fay na maa faye faye fay ba yoratul dara ba ba ba fay naa ko fay fay fay ba ma jeexal tamaa ko amee lii fayal ma ko yow mi dul jeexal dara suñ borom daa koy fayal bor ya joxal ko 200 milliards ñu ñëwaat ci tool ah. ñu nekkaat saa su wàccee mu jox ko junni ba 200 milliards jeex mu amee laat ko kayit ya bari mu ne ko kaa demaat waxaat ni Mouhamadou sama dikkaat ca yoonu ñaareel la booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu koo gis ngir ay midaay yu fees dell ci jëmu ci ndekete booba maqaamal mahmud bi ñu war a solal yonent bi tekki si xeeti médaille yu ndaw ndawaan yi nekk ci yenn sa la fokk am jàmbaar ji ñëw liggéey luy tax ñi teppi médaille yooyu ba mu set ñu doo ko sulal solal mais loolu mooy wa anna xaasa siraati mustaqiman fattabihu wala tattabihu subala ndax kon fatafaraqa bikum gars yi baax yi fi jaaruñu yëpp weesu di jël ci nekk ñi nekk ci ñàll wi di leen indi ci yoon wi kese kenn ku nek def ci la nga man seigne touba def ci lu kenn def motax mu war ci man sañ lu kenn waxna seigne sut nako sama sang ba day xana war naa caa sañ lu kenn sañut war ci man lu kenn mënut mu ko waaw mbacke mu ko xam satu xam nga lutax tax ma wax lolo mu ne ko Mbàkke bu ko xamee jël mu ne ko dama ko jaar fu ko kenn jaar dama ko jaar fu ko kenn jaar yoon ñaarel nak buñ suñ borom dafa wax ak bi ne ko li ci jëmm ji lu doon mu ne ko lii de ay médailles yu ma takkal la mu ne ko dañu laa teg ay natt yu ko jaar ba joxal ko mu ne ko waaw mu ne ko kii amee bor ne ko waaw te mënoo koo a fay ko waaw mu mu ne sama sang bi ñu demaat ci tool bi muy def su ma wàccee mu teppi médaille jox ma saa su ma mu teppi médaille jox ma ba médaille yi nekkoon ci moom jeex mu bindalaat may këy yoonu ñaareel wala dikk yoonu ñetteel wa dikk nag bi mu dikkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi toog ci sees boo xam ne rafetaay bi fokk takk wees ma ko bu suñ borom bu doon koy toog la néew ma dafa toog nag bu leen mu kenn yóbbu bu doon koy tok la la wax tok na ci ses bu rafet dangeen koy duggal ci biir yeddullaahi rek bu ko defé mu neex a dinjati bu doon koy tok la mu tok ci ses sëñ bi saa tok ci ses mu waxat la mu xon boromam suñ tuba suñ borom nako ses bi nga tok du yaa mu ne ko mu ne ko dañ la teg ay natt yu ko def ba ba jox la ko mu ko te mu ko ñaka fay te da la amé borom nako mu ne ko ko ko sëñ bi neena na sama sang ba ca ngor ga non la ko waxee mu ne ñëkkit juk jàpp sama loxo teg ca sees boobu ma topp léegi mu taxaw ci xaal boobu nag boo nee yàlla rek sëñ bi nga ci teg boo nee yàlla rek sëñ bi nga ci teg bu doon suñ borom day xalaat dañ naan day mel ne xelam daa dem ci imaamu rusli wa xaril bariyeeti xaatimi nabiyyiina wa imaamil mursaliina kenn mënu ko fete kaw nee na suñ borom ne sojjat jóg jàll fa neen nee na bi mu ne ñokket laa xool sees bi suñ borom toogoon ñu bind ci haasa maqaamal mahmud nee na mu ne cas loxo bi yonent sallallahu alayhi wa sallam teg ca loolu tax sëñ bi daan wax mag ñi naa leen sama liggéey bi yéege na mag sama liggéey bi yéege na mag kon ñun nañ xam liñ am lu mu xam niñ ko war a téyee am ko te xamoo ko dégg naa ñu ne ñàkk ko te koo xam sax ko gën wala ñàkk te xam ko moo ko gën nañu suñ Tuubaa dimbali ñu xam ko am ko tabañ bañ koo ñàkk moo gën ci ñun foofu su ko defee su ko defee nee na keroog bi mu jógee foofu fii di ñëw fii néeg boobu yi nee na keroog bañ ko ba mu tegee tànkam ci néeg bi nee na sëñam sutur ràbb gi ma yëg ne moom a njëkk a jam bi ma làmbee sama loxo ràbb gi dafa génn ci biti sar ci biti te nee na wóor na ko ne bu tegee loxoom ñaaree bi noonu lay demee te mënu ko ñàkk a teg dana ko waaye am sutu la ca mat a xam nooy dana am sut de seen jëmm yi rek a taxoon wallaahi asim loolu la ko am sut de seen jëmm yi rek a am sut di seen jëmm yi képp a te nee na ba rab yooyu jeexee ay xotti bi biteel la ca teg ba mu ca noppi nag ca lañ ko dugg dugal foo xam ne du sëgg du siggi du taxaw du toog suñ boroom fekk ko fa ne ko na nga ma doon jàngale alxuraan ca sa mbaar ma xasida yi wër la taalibe yi wër la ñuy tàngal kafe nga nekk fii sa péex na nga ma doon teewloo teewloo ma ko ci xat-xat yi ba xam danaa xamee ñaar jotaay su ma xamee ñaar jotaay yi dindi liggéey bi mu daal tàmbali bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin abilah misaal kitaab ba mu jeex takk suñ borom xàmmewul jataay bu naqare bi mu jaamoo yàlla ak jataay bu neex ba mu doon jaamoo yàlla xàmmewul ñaari jataay yi kon ñun dañoo war a xam suñ bopp bu baax te suñ jën mii képp a taxoon suñ Tuubaa di wax liggéey boobu mu liggéeyoon yëpp ñun ñi képp a taxoon mu di ko wax daj na loo xam ne kenn daju ko dem na foo xam ne kenn demu kon la ko Cheikh Abdou Lahad waxoon ca bel ba mu buy ba ñaari rakam ya ba noppi daal ni addi yi suñ dal di gess mu melni mbolo mi nek ci ginaam da bes ci ñom ñu ne waaw Mbàkke de mu ne len mbaat da ngeen ko du def man Abdou Lahad de musuma fàttali ko fu ma ne alaykum ci julli te néew mu addi yi suñ nan noonu la ko wax dan dan ni njëkk a di waxu di di wuti fek ci pénc mi la tokon di waxu di dugg ci bir kër gi nan ñun dañu sëgg ko siggi rek mom kep julli won ba julli jotey mom doo nga julli won te sun julli yi dara bax ci te buñ ko ko joxee addiya doyoo ko tous da koy defat ba mu mu delo ñuko ko seeb mo xam seigne touba da koy defat ba mu mu delo ñuko kon ñun fofu lañu wara war suñu tank suñu digënté ak seigne Touba seigne Touba ne ko seigne sœur yu waxe léegi ak seigne Basirou wul yalla la wul lu téré tere wul lu yalla digle Serigne Touba wul lu yalla tere terewul lu yàlla digle daana wax né aljana jo xamné lu way neex def lu way neex wax man ahmadu ummu ko ku ko dégg dem dama wutu ndax iñane wum la ko noonu la ko sëñ Saliou waxe kon ñun dañu wara xam suñu bop suñu digënté ak seigne Touba defal luñ seigne Touba luy tax mu bolu ñu ci bopam seigne Mbay dara ko né gënal nday gënal bay mu ne ko mbay nga joom kay ma defaral lako gën ak gënal bokkul da nga naan yaa gën ci nun sunu ndey yaa gën ci nun sunu baay dana ko mbay li ne ci man bu nekkoon seen ndey ak seen baay du ma leen gis li ne ci suñ tubaab moom bu nekkoon suñ ndey ak suñ baay luñ ko ko dal léegi nag boo bëgg boo ko bëggee la bëgg da nga koy bëgg dafa wax ne foofu laay dugg sax ndax jotaayub Serigne bii ñu tudd ko seen sutu mën mënu sutu ñàkk a wax ñaari béy ci xasida yi tëjee ko xasida mu xaddimaat rek laa ciy laa ciy jël mu mu ëmbaale yëpp ndax li ma bëgg a wax ci la bokk dafa wax ne xasida googu yi maanaam jëmmi sëñ tubaa ci kaw suuf fi ma waxee yow mooy xasida yi jëmmi sëñ tubaa ci kaw suuf mooy xasida yi ndax loolay mu waxoon ne sama taalibe yi sama doom yi sama jumaa ji sama dëkk bi sama xasida yi loolu lépp am na lu mu ca waxoon ba mu ne sama taalibe yi nañ dane yéen sama waa kër yi mooy du leen ma ci sama taalibe bi ndax ñoom sama taalibe bi yéen moytu leen ma ci sama waa yi ndax ñoom man rek la am daan na yéen sama waa kër yi nag moytu leen ma ci sama taalibe yi ndax ñoom rek la am wax nañ ne Serigne Fadulu fa la ko fekkoon loolu la ñu wax ñu ne Serigne Fadulu ñokkat ci biir foofu da dugg ci biir taalibe yi daan na ñi ñi ñi am sëñ bi ñi sëñ bi ama ko gën ndax ñi am sëñ bi mën nañ koo ñàkkaat te sëñ bi ku ñàkk moo tax mu dugg ci biir yi moom Serigne Fadulu dafa dégg sëñ mu ne sama jumaa ji sama dëkk bii la ci wax waxul ne nag sama dëkk bii ku fa dëkk da nga texe àddina ak àlaxira waxul loolu dane ku fa dëkk na ma bëgg ku fi dëkk ku fa dëkk na ma bëgg ku fi dëkkee la wax waxuñu la nga dëkk Touba rek loola neex def da ngay dëkk Touba na sëñ Touba bëgg ko dëkkee Touba nee na sa ñaar yi ajuma ko ci sa ñaar yi sag dem àjjana ajuma ko sa jàmm yàlla yu bari lu mu tuut tuut na sell sab dépasse aju ma ko ci sab liggéey ku way loolu damay umul xoraa fa ñu wax umul xoraa da nga fas ay kër yoo xam duñ xëy dem fenn te buñ xëyee dañuy añ ñëpp ni ñëpp dañuy dox kenn du leen def dara dégg mu ne sama doom yii teg naa leen siraatal mustaqiim te duñ ko wàcc ku leen topp ñu teg la siraatal mustaqiim sama jumaa ji ku ci fenn dootoo nëbbu am nañu ko sàkk woon def ko ni ma bëgg te sama borom mel ne ma na ma bëgg ndax bokkul ci buftu bi di woon fi lañ koy baax looloo tax waa kër Sëñ Tuubaa yi di ci bëgg a seen bopp ku di ko xolle bu kee keneen dikkee xolle waat te dañu xolle ba keroog ñu dem rek dafa wax ne sama xasida yi ñooy samay tànk te koy topp ay tànk bu yàggee da nga gis lu bokk ci jëm loolu wax daa am lu mu ca teg lu kenn xamul moo wax leen ko man dane sama xasida yi sax de ñoo gën ci yéen sama doom yi xanaa tayee taxoon ba mu koy wax ndax ci say doom doomi Sëriñ Tuubaa sama xasida yi ñoo gën ci yéen sama doom yi ndax sama doom yi dañuy mer ak a bég seen waxtu mer ak seen waxtu bég neexut a xam te bu ñu ma meree suñ borom mer noonu la ko waxe ku wedd demal Sëriñ Saliou boo amee lu ko mett day muuñ rek te muuñ ci ko bég lañ ko xamee mu ne sama xasida yi nag duñ mer duñ bég te lu ci waay sàkku am ko daal dina gees xanaa masalikul jaan ba ma ko talifee yàgg na loolu ñu ne ko mu ne sukki wënde am ko moo koy moroom wadd قبل توجه اللحين إلى سوى خارجه أنت المهم وجل لمن يقرأه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يخبط به به googu nag du ceegi ne jalbatu maraaxib kese biig sëñ Tuubaa moom la ma leen ci waxoon rek moytu leen ko bokkut ak biig keneen ak loxo keneen biig sëñ Tuubaa bokkut ak biig keneen ak loxo keneen biig mooy xasida gii ak geneen xasida groupe gii قصيدة جي أجرن قصيدة غرقي بني ورد فابيه دوت جالب تمارح كذا يبتي لبوك نح دنا وشال به نسمية نسمية تج بدي جالب تمارح لقوا بران جالب تمارح كيف لبوك هذا نان وشال به نسمي هذا نحن نكون بيل واي وشال به نسمية فو خسامي وشال كتابتيا كلام مال سالي هذي سيب لا يجهد لا لا نكو xasiidati faaxat xasaayidal kiraam boobu gën naa ne fe gën naa fee nekk gën a jàng jumaa ji ma jël ma xool saana ilaay gis sa xasiidati faaxat xasaayidal kiraam fekk booba am na ay mburu yu sëñ lay daan séddale sama classe gii ñi ñoo xam ne ay kii lañ booba ay gone lañ daan nañu ko séddale ba muy nekk mag ñu tàmm ko di ko jëli foofu ba ma àggee laa ko laa laaj laaj bii ne ko waaw xasiidati faaxat xasaayidal kiraam damaa jàng ba wàcc dem fa booba euh, li ñuy wax boo tollee ci jàng critique da lay yomb ak xeet yooyu boobu laa boobu loolaan ki ndax قفعت قصائد الكرام له الكرام موي بيبليتك بان خامنا فلا سوني بوروم دين سي قصيده واي كرامي نيت نيت تاد بان تغلن فان لين ورا ني سني باس وخلا ني جال خير المنى نيكو جال با دم ها دوجو تي بير خير خيرات با جالكو ньоญا سين قصيده يوي فان كو تك سيغ بي دا واخني سي مثال سو سما كي دنجوي ген دوجو سما مالك سين سين سين ابلاي مي فك ميغي سونو ني لاجو ما لاجو غوني دا وا دوما تونت تونتو غوني ndax ne ma alkiraam yooyu yi ngay wax ñooñu kiraam yooyu yi muy wax mu ne ko waaw mu ne ma mboolem ku a taalif ab ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ko def mboolem ku mas a di ci tagg yonente bi mbaa nga ci tagg yàlla ba fii may wax ak yow mu ne ko ah ay balaas kenn ku nekk ñu war ne la ne maa ngi nii mi ngi nii ñu la tegal ci kaw balaas mi nga teg ñu la yégal ko ana li nga taalif yi da laa ñu ne ko tegal ci kaw balaas mu teg nee ñu ne ko yéegal ci kaw ba ñëpp yéeg ba pare ak seen i bagage nee na buñ tegee wenn bayitu sëñ bi mu wat leen daana ma te bayit wa danaa la ko wax daana ma jàng nga gis bu ma ne ko waaw mu ne ma woomu ak man lu waraa xal-xan waxul xan saxaraa wala musulu xattu lan wala lan yuraa fi si kenn mënu ko wees ci tagg kuy tagg da ngay saraa rek waaye mënoo wees loolu loolu yi la wax léegi nag bi nga xamee ne moo xadimaat am dex bi bokkutoon ci war a génn am na mag moo xam ne moom la sëriñ bi woo du ma tudd tur bi ne ko moom la sëñ bi woo am lu mu ko jox ne ko sottil ma ko mu gis ca muxadimaat ne ko damaa bëggoon yii mu des ci yi fii des mu bokk ci yi fii des ñu jariñoo ko sëñ bi ne ko loolu mën a wut ci bi mu génnaatee mu gis mu dabuwaat ko ne ko mbàkke de lii ñoo bëggoon mu bokk ci yi fii loolu mën a wut ko loolu mën a wut bi mu ne ko mën a wut sëñ sëñ sëñam su topp ci sëñam su topp ci euh, ne na mu ne ko loolu xaaral ma laaj ko sama borom sëñ Tuubaa nag bu nee xaaral ma laaj sama borom loolu bu la jaax bu mu la jaaxal de boromam ma ko jegee woon lool tegin goo xam ne njëkk muy dem ci géej gi boo ko laajee dara day jóg dugg ci ne bi xaaral ma laaj ko sama bi mu jógee ci géej gi différence bi mooy fi mu toog lay toog ne xaaral ma laaj ko sama borom ci néeg la tugg di woo suñu ko yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi ba am lu ne ñëkk ci mbagg mi ne ko bu ma waxati yaa rabbi kala yuuxu ngay yuuxu naan ko hey kala sori waaye ki nga xam ne foo gee soog ko jërul wax yaa rabbi jërul naan yuuxu يا جاري فوف لا تالف جاورت بالفرخان ربي المعين ملكت نفسي وصحصحة لهي mu daal ne ko sa morom nee na manu na cib saas su fekkee mën ngaa bind mbind mi sotti ko lépp boole ko mokkal xasida gi ñett njaq yee mën a dun duyloo nga duy ko sot xalima yooyu lal si jaara gi mokkal xasida gi balaa tisbaar sa borom nee na ma bàyyi ko fi seen sut daane ko mën naa ko suñ xëyri nee na ma seen sut nee na ko booba de xam naa ne sax mënuma ko mutu tey waaye xam naa sama sag ba xamin woo xam ne su ma ko nee mën naa ko lay tax ma mën ko dana ko def ci man foofu loolu war nañ fay jàngate bu baax a baax a baax bu la sëb sëriñ ne defal nangam bu ko ne ndax sëñ bi dañ koo seetaat jógal jëm ci la sëñ Saliou doon nett li si Ibrahima Fall rek ginnaaw tokku saam julli tokku saam rab di jàng alxuraan moom sëñ Saliou am gone ko dox ci kanamam sëñ Saliou mi ni muy wàccee boppam ci gone yi gone gi jaar ci kanam mu ne ko damay bañ ku jaar ku ku mooy jàng ku jaar sama kanam de gone gi jaaral fa mu ne ko yaa ngi may tooñ xoolal loolu yaa ngi may tooñ gone gi dikki ne ko baal ma mu ne ko baal daal di gënte am jàngal tey jii bu doon sama gii boo ko ne réel am mbees dafa dañ koy jël loolu war nañ ci bu baax baax bi mu jàng ba yàgg ku ñëw toog ñuy waxtaan ba yàgg sëñ bi di wax ci pas-pas muy wax ci seeroy fal daan ne daal di am miir fekk am miir bu nekk ci kanam mu daal di joxoñ miir buntu baa nga ne waaye daa joxoñ miir daan ne sa law seeroy moom mii de njëkku ci sëñ bi mujj fi waaye lu am pas-pas ko ko may nekkul ci sëñ bi mujj fi waaye lu am pas-pas ko daan ne moom de sàllaw bu ko sëñ bi yónni woon fi ñu daal di joxañ miir bi sàllaw bu ko sëñ bi yónni woon de ne ko jaaral nii wutal ma nangam nee na fi ko sëñ bi joxoon lay jaar ndax da pas-pasam may na ko bu jubee miir bi mu topp bi mu noppee nag ba tàmbalee assi ci yéen sala salaam ba tàmbalee xuus tuuti la seen looy xoy muy saxaaba yi mu daal ne ayaa xaadimal muxtaar yi laa tan sa saabuhu ndax fa may yansawhum fal mathu matxun waxatu yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du la tagg tagg fàtte say saxaaba ndax ku la tagg fàtte say saxaaba tagg wa mën naa baax waaye du jub mbaa boog dana ñaaw nen Abubakar ak Omar ak Usmaan ak Aliyu kenn mënu leen a séen ndax ay junniy junniy junniy gileema leen wër ci ay xewal ba mun leen a gis maa leen njëkk Abubakar nee na yonent bi moo ne ñokki jóg kaala kaala gi mu kaala woon di mooñ da dindi kaala gi sëriñ bi nee na xasida gi lam ci amee mooy keroog la mas a gis ba ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ca biir bañ ba ñu wax roog seen nenek na ci xasida gi ci la ko sëñ bi gisee ndax daa ree ba xaaxataay nee na ma séen ko xool fa mu teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ree ba mu gis bëñ ba képp xool fa mu ko teg nga xam ne bu dul woon ak yii mu ñu fàggul sax dafa day farata ñu topp ci ginnaaw nga fa mu teg yonent bi sallallahu nee na Abu Bakar siddiqu soo sidqi wal wafa rafiqu nabiyil Mustafa alxaari an boobu Abubakar yëkkati gileem yooyee jox ko summi mum mi teg ci loolu la ko نفيد نجموي بمتودي أبا بكر همار دايا كار دمو كدو تدو تجس نبي متودي أبا بكر لمام نلم ولا ربوا سما نيار كار يقط نما يتو أبا بكر ليك منو كوا مول متودو ما ليك نينكو تودي فيك ده تودو ما نينكو تودي أبا بكر ليك نحجس نا أبتير بمام تبارم ليك بوه من تودو جينكو تودي المكمة مولى أبو عصفين الفاروق سرواه نادر به تسدين المصطفى إيش جسوا nee na Ousmane wàcc ne ko yaa tudd gars yi mu ne ko waaw mu ne ko tudd ma ne nga leen tudde mu ne afi sax bi man daxaam nal xafaana salxaya loxo nuuru suma nuuru néemal mu boobu loxo nuuru suma nuuru moom xam ngeen ko nee na mu yëkkat la mu yoroon jox ko ti sumbi bi mu teg ci xal luy wàcc ne ko bisimilah ni nga tudde gars yi rek mu ne abo si tayil muxtaari waxoom nu xammihi xalli yun xalaa faxtiran xalaa faxtiran ixmal mu jarraw nee na bi mu waxee loolu mu yëkkat teg ci nag ne ñu ñëpp ñu bokk toog sëriñ bi daal di wax ak ñoom ne leen asxaaba rasulillah ndax yéene saxaaba yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko waaw ñun ñooy saxaaba yonent sallallahu alayhi wa sallam muy asaaba rasulillah yéene saxaaba yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ne waa ñun la kañ wax Ousmane ne ko ñun ñooy ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca màkka ji njëkk ja ba ci màkka ji mujj ji nee na mu ne mu ne leen inni xaddimuhu ñoom ñu xoolante mu ne leen muhibban lakum fonk naa leen loolu te bëgg leen waaye nag fillaahi xool fa mu teg yàlla fillaahi yalla kepp tax ma fonk leen te bëgg leen bu ngeen fi ne ñukk yalla mën na leen fi ñukk tay wallahu yakalu moy wala wala man aqul wakil noonu la ko waxee dal bu mu ba nak sa bay dem nak neena yonte sama sama sama sang ba kala gi mu kaala woon mu ne ko nekket dindi tag ko ci ndigale ndax amna na fu ma jëm ak mom bima ne sojjat jóg nee na mu yaa ngab kaas yam do yoron gaaya te ngir bëgg bu ma waxe la gaaya waxon mu jox ma lim joxon gaay neena nak mu ne ko ma ñew daal di nee na seen sut nee na sëñ bi daa maasale ci suuf daal di bind naxaani ya obbullahi niimal muhayminu xanil may li xamaqatira wala xaq manu daal di am sutu firil seen sut firil mu ne ko nuru na ko waaye xaaral ma wax li ma jublu li ma ci jublu mooy jaamuwuma yàlla ngir bëgg ngir ragal sawara jaamuwuma yàlla ngir bëgg àjjana daanaka li ma ci jublu mooy damaa bëgg yàlla man ahmadu ma bëgg yàlla xam ne bëgg naa ko ma xam ne lii la bëgg ma def li mu bëgg ngir moo xam ne bëgg naa ko bàyyi gi ma bàyyi yàlla tere dama xamne li la yalla tere dama bëgg yalla ma xamne li la bañ mu bëgg mu xamne bëgg na ko ma bayyi lim bañ ngir mu xamne bëgg na ko waaye man jaamuma yalla ngir ragal sawara jaamuma yalla ngir ragal ngir bëggati bi ma xam baagal ak yonte bi taxaw diko xol mu ne ko bi ne ko nak nabi lo saxnu nasim mu huwal mustafa al muxtaar huwal muhayyan xayyanu mu di jël kaas bobé mu taxawaloon gaaya da tigg soti ko yakare fofu la yam منك نقي تقي سالم ومسلم جواد كريم بالمكارم يصنع محمد كي يا لولو اي كاس موسى نكاس يا دم جلاي بوت تان وصوتيكو بيم نيكو نبوتو حبل البرايا خد نجلا لو سق حين جد فتين يصنع محمد كي يا لولو اي بوت موسى ني بوت يا دم جلاي سيو دم لين ليرا رك فم جيم سي كو اوسكو تسقيني لا جيم بام ساندي بوت يا بام نانكو أه، لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك السلام الله يا من مع الظلا نانا موسى ني بوت ندايا سيوايا دم جيل اي بان تانغا ديكو سوتي تانغا ديكو سوتي بام ناكو لبست ثياب المجد والفضل والحلا وفيك من الاخلاق ما عجز الكلا لقيت من الاعداء ما ضلنا محن هلا انك ليس الذي حزبهم فلا نانا موسى ني بانيا دم يوني بريغو تانغا ديكو سوتي بمن اللي ربي خروجي ما حد قولي بمن سننا من اللي كتير لغبي واقوم من نفهم قلنا دعنا بمن امتى يعنى وانا تفير جم فير تيجي نمسا زلم تلا رام باي جاي يوم خمن خمونيو كي يعنى تبي ام الانسان قبل امون ركدي كوه تانى نان سوين سانك بوبني امو تفي يعنى تبان دا دا بتشي لغبي دي واقو مغير سلنرين لكل من السادات جاهم وحرمتهم duma len contre mukk nañu bax lañ jambar lañ waye walakin jaal Mustafa xana gusulen ko al bar yahtali ay tanef lañ njëkk rombu sax ñu nan ñun suñu suñ tànneef bii amutut naa mu ne li min al akhyari fadlun wa rubatun waye wa maa kam ni habdun la dal hali dogo dikk ci li min al sadati jaahun wa hurmatun walakin a jaa al Mustafa al bar yahtali دانين لانديا بالايات رسول تقدموا اهنا ايتيرن يلي وون تاغيوان تي يون ولين سيغون تاغام واي فنانو بك الايات من ست تفضلي وتمت كلمات ربك صدقا وحدا لا مبدل لكلماته وسمع العلي القران مو غنا مات لب ناخ دا ام لو نيك تي تيري تيري بي تانيكو تي ايات لا نيك تي مينت بي دانين دالين باين خوما ديغين توب سما غيناولا lu ngeen ci def yéen ko xam waye li seen xarsi da wat mom sëñ bi li seen xarsi qad aslamtu kulli bi jahikum wa saadi ila jannati khairul munsali te la na ko nag ba mu ne ko déeg baa ngi nii nag tàng naay pot ay siwo ay na daal fop dëngal ko ne ko nag bu ma jeex na jeex sëñ bi neen ba ma sëggee ba ma sëggee daa fett ba balen degum nor da ngar tam nañu farangon mu ne ko nak ñi rang fofi su fekente ne li ci deg bi lan taxoon a nañ ñëw ci yow sàkku sa ngërëm ba am ko ma duñ ci jot لول موي سمام وراء حسري لا الله في يدي وما رمته من مالك خار بن يني كو ياكار كوم ياكار كاكو ياكار لام كو ياكار بو نيوت سي سنتو بارو سوتي ديك بوب نك موي كو اوسو كتسخيني كو اوسو كلا واخ واي دو اي كاس ناخ ولي قط فايدا اخجل البحر لا واخ ولي قط فايدا اخجل البحر والفلكا كني تاكلي سيرن توبا la mu waxoon mag ma mi ne ko xanaa tudd giñ may tudd di tudd keneen métti na la lool mu ne ko loolu rek ma dese ci naqaru adduna de mu ne ko bu ñaari ker yi tasee danañ xam ko li tax may wax wax ji gars yi dañoo wax léegi tiital leen ba ngeen tiit te yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama moo sëñ bi xarfin te si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom da ko wax nag naa arsalnaaka bil haqqi basiran wa nasiran xubbee ak bégle gaa yi nag indi nañ leen lu baree baree baree bëri soññ nañ leen ci ba mënatu leen a toog ma fokk ma dalal seen xel